suñu kilifa yu nekk fii ci mbooloo mi wala yenn xale yi su ngeen demee seen kër su ngeen fa amee ay waajur ay retraité wala seen maam yi doon ay retraité semaine bi dinañ wax ci suñu waxu projet de législature parce que projet de législature boobu dina intégrer lu ñuy wooyee benn projet de gouvernance projet de gouvernance mooy kuy jàppee boppam comme kuy dem ci cohabitation parce que wax ji mooy cohabitation mënu fi ñàkk loolu mooy dëgg bi lépp lu ngi leen di gis nag ñuy def moo xam transhumance bu ñu wootee moo xam fitna bu ñu jëm a yee ci dëkk bi moo xam tappale yu nekk ci dëkk bi loolu yëpp luñ ciy jublu ñoom mooy jéem a xool lu ñuy sàcce élection yi leneen amu fi parce que foofu la ñu toll parce que ku gëm boppam wóolu boppam mën a peese boppam ci élection soxlawul ay transhumants soxlawul di wax ay wax yu dëppawul ak dëgg mais na ngeen ma waxal suñu papa yi ak suñu maam yi suñu yàlla may ndam te dinañu ko may incha allah dañu fas yéene exonéré bépp retraité bu dul gagné lu ëpp cinq millions du ko dajale ci at bu nekk du fay impôt lu ñuy woowee impôt sur le revenu fas yéene dugal ay loi fii ci assemblée nationale du fi amati kenn ku fi mën a am sañ-sañ jóge bitim réew ñëw Sénégal di fi ubbi société te du am doomu Sénégal bu ci am ay action képp kuy jël jeune bu am trente cinq ans et moins te kooku musul am xëy bépp patron bu embauché jeune boobu kooku dina toog ñaari at du fay lu ñuy woye ay charge patronale te lépp lu ma leen di wax nii suñ ci eggee dañ leen wax nuñ ko fas yéene def parce que ñun dañu xam état namp état te am nag yéene liggéeyal état wante su leen gisee ba ñu tàmbalee élection élection yi ñu ne il faut ñu yee askan wi parce que dafa am ku leen fi nelawal te il faut que ñu yee leen parce que kooku du waxkatu dëkk te ku dul wax dëgg xam ngeen nuñ koy wooyee nuñ koy wooyee nuñ koy wooyee loolu du saaga dama nekk ku dem ba fen fen ba fenal boppam wax dëgg yàlla luñ ko tudd rek moo ko teg boppam wante semaine bi dañu fas yéene wax ci Sénégal ak ëllëgu Sénégal te may biralaat wax ci fii cohabitation dina am incha allah te ku ci njëkk am intérêt ci coalition bi mooy ku ngeen fal yéen mu doon président de la république du Sénégal waaye nag daf leen nank bugaan bugaan mënu leen jox pasti valda mënul nekk pasti valda ku amul ordonnance mënu ko màcc yéen tamit yéen docteur mooy bind ordonnance yéen tamit non déet bul jox xale yi valda xale yi amuñu ordonnance waaw wante nag xam ngeen yebeel paasewul nit bu jàkkaarook askanam xalaat ne am na lu mu mën a nekk di match pour nelawal nit ñi ak nax nit ñi Sénégal ñëpp a yeewu dañuy toog ne patrik di la seetaan wante le 17 novembre dinañ la woon suñu bopp nax nga nit ñi fen nga nit ñi ba 83 sénégalais ñàkk ci seen bakken ndax yaakaar ngay fooyee lu mel noonu comme da ngay fooyee lu mel noonu la di 17 novembre incha allah dinañ la woon Sénégal sa moroom newu fi ñun dañu am diine am pas-pas am yaakaar ci suñu dëkk ak ci ak ci ëllëgu Sénégal te yaakaar boobu kenn di ko tas moo tax mbokk yi le 17 novembre xam ngeen lii di fulla xam ngeen lii di fayda lépp lu ngeen di gis ci internet lu ci bëri dañuy fooyee seen xel yéen nag na ngeen téye seen arme mooy seen carte électorale le 17 novembre votez pour vos parents votez pour vos enfants Votez pour vos voisins. Votez pour le Sénégal et pour l'avenir de ce pays. Votez pour la cohabitation et votez surtout surtout may biral at wax ji da ngeen fal président wante président bi toogagul président nag su ngeen bëggee mu liggéeyal leen day toog ñun nag président Bassirou Diomaye fay nangul nañ ko mooy président wu Sénégal parce que jullit mooy kuy julli kuy julli day nangu ndogalu yàlla moom la fi yàlla teg wante toogagul ndax lan ndax naa féq bu nangul ndogalu yàlla kon nag le 17 novembre nañoo ànd am majorité assemblée nationale mën a may président mu mën a toog mu mën a doon président ñun ñu mën a am assemblée te di mën a contrôler l'action gouvernementale ñu ngi leen di gërëm di leen di sant le 17 novembre en marche vers la victoire chers candidats vous avez la parole